ñëw je crois que format bu njëkk ba moo dàq de ah. moo dàq moo tax ñu koy réclamé. <laughs> mais léegi nga delluwaat si incha allah vraiment di kontaan di ñu nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetante. Mm-hmm. si kanam tuuti donc dinañ def le tour de l' actualité donc euh, qui a marqué euh, cette semaine dañ fas yéene def point bu nekk ñu def si euh, jàngat def si taxaw seetlu euh, ma dooree xibaar yi ak li nga xamante ni moo jëm ci concert de casserole bi nga xam ni démb opposition bi à travers Ousmane Sonko bu yeewi askan wi daal dinañ koy rek. rek euh, woote démb nag euh, bu ñu euh, ko comparé ak bu njëkk ba dinañ ne bu njëkk ba ëppoon affluence que hier ndax li ñu gis démb mooy que ni am na gox yu répondre à cet appel naam am ñi nga xamante ni itam juguñu ngir wuyu ci concert de casserole boobu nga xamante ni moom la Ousmane Sonko woote ñu daal di rek taxaw ci li nga xamante ni moo di drame bi am ci Kafountine démb procureur bu Ziguinchor daal di génn di xam ne ni mi ngi lim bi donc bilan définitif bi mi ngi toll ci fukk ak juróom say doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañu seen bakken loolu mooy li nga xamante ni Euh, tukkee na ci dinañ ci ñëw ci nu mu gën a euh, yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar di wax itam ne démb la kii di Moustapha Niass daal di quitté assemblée euh, nationale démb mooy li nga xam ni moo doon marqué jeexitalu treizième législature loolu sax dina doon li nga xam ni moom moo di ponk bu ñu fas yéenee jàngat léegi léegi saytu ñoom treizième législature bi lan lañ fi mën a jàpp en tout cas ci seen liggéey. loolu yëpp dinañ ko waxtaanee loolu moo nekkoon donc li gënoon fës euh, ci yéenekaay bi il faut juste aussi rappeler que ni Sénégal mi ngi rek nekk ci perspective euh, budget 2023 ci 6 000 milliards lañ ko daal di rek euh, en tout cas séntu te itam croissance bi ñu ngi koy xaar diggante 7 virgule 8 jàpp 10 virgule 5 pour cent bu nekk croissance économique ci wàllu ci Sénégal donc li nga xam ni Euh, ñu ngi koy euh, xaarandi noonu la ñuy daal di def euh, daal di soobu ci waxtaan bi Babacar mm. je pense que li ci gënoon a fës démb ci mooy li ma mujjee léegi muy kii di Moustapha Niass président de l'Assemblée mm. nationale démb moo nekkoon ajoom yu mu doon def fan tàggoo ak député yi nan nga gisee li nga xam ni moom moo di toogaayam foofu ak surtout anam bi mu tàggoo waaw je crois que euh, euh, mandat mandat député dañu jeex démb. Mhm. donc euh, ñi ngi dem ci élection législative pour fal yeneen député loolu donc dans un cadre global général donc euh, dañuy amaat maanaam pencum ndaw bu bees ay député yu bees le cas Moustapha Niass nag dafa attirer l'attention de Sénégalais parce que maanaam depuis euh, euh, le président Senghor ba léegi dañ ko gis mu nekk ci administration sénégalaise ba nga xam ni fi mu mujjee mooy présidence assemblée nationale. ah nekkoon na fi ministre vraiment ba bi muy créer euh, euh, bi muy créer AFP nga xam ni euh, en deux mille en quatre vingt dix neuf bi nga xam ni coow am na si parti socialiste moom ak Djiboka Djiboka génn fa Djiboka moom mu topp ci après ci la nekkee premier ministre Ablaye Wade en 2000 mais après bi président Macky Sall ñëwee également ñu jox ko présidence assemblée nationale je crois que loolu yàggaay ci administration bi mën na nekk quelque chose boo xamee ni mën nañ ko nawee Sénégal parce que am ay expertise yoo xam ni am nañu jaar-jaar waaye man dama yaakaar ni euh, ni mu tele surtout moment bi ñu toll damay wax ni ku mel nii président Moustapha Niass euh, bu fekkee day ànd ak euh, président Macky Sall muy rakkam quel que soit par ay poste de responsabilité bi nga xam ni Macky Sall moo ko si jiitu parce que moom mooy président de la République man je crois que fii dëkk bi tollu doon nañu xaar ñu mel ni président Moustapha Niass ñu amoon beneen rôle bu ñu joué parce que xam nga par parloo dëgg la créé nga parti politique dëgg la waaye am nga vécu boo xamee ni Sénégal soxla na la ci yeneen anam te je crois que très sincèrement moment bii ñu toll nga xam ni moom amoon na rôle boo xam ne bu mu waroon a mën a jouer du point de vue de la sensibilisation du point de vue wax ak président Macky Sall même s'il le faut sax à la demoon sax rencontrer d'autres acteurs de la vie politique sénégalaise muy société civile muy opposition parce que mm. vécu may na ko loolu man je crois que foofu au-delà de liggéey bi mu liggéey parce que assemblée euh, am na lu mu fa lu mu fa initier loo xam ni am na solo maanaam euh, xam nga assemblée <clears throat> dafa nekkoon rek au niveau interne la ñu ko doon gën a euh, gis mais dama gis ni première année Moustapha Niass def na si benn diplomatie boo xam ni te nationale maanaam dafa initier ay rencontres entre lui le président de l'Assemblée nationale ak d'autres pays nga xam ne doon nga ko gis muy dem maanaam teewal Sénégal parce que maqaamam may na ko loolu mm. vraiment du point de vue de la gestion ak yooyu am solo même au début gis nga ni mu doon xëccoo ak euh, waa PDS ah waa ak Ousmane Sonko ah, ñoom euh, comment comment il s'appelle encore Toussaint Manga mm. mais benn moment euh, boo setloo bu baax depuis quelques mois dafa gën a calme dafa gën a am benn benn image bu muy wane ni il est à équidistance de ce qui se passe en tout cas xëccoo beeg wane wanetu ko ba nga xam ni bi mu annoncé ni AFP da koy bàyyi ak xale yi loolu gis nañu mu demee noonu. mais démb ci ay kàddoom mi ngi ne euh, opposant du ennemi. mu mel ni foofu bu ñu ko déggee dafa commencé en tout cas dafa wane benn euh, discours bu rassembleur bu fédérateur boo xamante ni en tout cas de sa part surtout ci contexte bi mu ko defee. mu non da koo tàmbali da koo tàmbali booy seetlu astu ça fait quelques mois mi ngi wax ak Toussaint Manga xam nga moom Toussaint Manga xam nga Toussaint moom mm-hmm. dafa nekkoon koo xam ni dafa am hargne à l'Assemblée mm-hmm. euh, moom ak Ousmane Sonko ñu nekk ñaari image ñaari profil yoo xamee ni toujours dañ doon jàppanteeg président Moustapha Niass mais li ñu gën a seetlu daal mooy depuis quelque temps am na kàddu yu mu wax ci Toussaint Manga nga wax ni bon fugg bi mu am de jeunesse ba gis naa ni sax dafa mel ni daf ko gën a encouragé si li muy def quoi man loolu déglu naa ko euh, bi coow li jeexee ma ni ah président Moustapha Niass de am na beneen image bu muy jàllale si biir assemblée surtout ndaw yi nga xam ne ñu ngi fii donc mais je crois que loolu euh, bu fekkul woon peut-être jaar-jaar yi mu nekkoon nga xam ni xëccoo bi bëri woon na ak xuloo bi waroon na mën a am rôle bi nga xam ni Famara Ibrahima Sagna. je joué na ko. joué na ko nga xam ni si euh, diggante Ablaye Wade ak Abdou Diouf. ah si eh, nga xam ni sax ba si eh, ba si dialogue bi nga xam ne weesu na eh, même si dialogue bi bi muy tollu tollu amatul amatul impact bi mu amoon ah, parce que dialogue bi aussi lañ doon xaar ci moom ak la mu def donc je crois que ôté na ak la mu doon def avant mais nu mu mën a demee rek mag ñooñu dañ leen di soxla Sénégal lu mel ni Moustapha Niass man je crois pour man. Mhm. peut-être que li mu génn assemblée peut-être que léegi war na mën a toogee njaaxaanaay ba nga xam ni kat. ñëpp mën na wax ak ñëpp pour que pays bi daal di nekkaat ci jàmm. souvent ñu ñu ñu def benn euh, jàngat ci moom euh, mu nekk ay surtout euh, opposition bi di ŋàññi li nga xamante ni moo di taxawaayam ak yu am ci seen politique bi euh, jamono bu mu fi commencé politique ak léegi bu fekkee régime yu bëree bëri gis nañu Ousmane Sonko discours bi mu tenir euh, ca place de l'obélisque ba nga xam ne ñu bëri sax dañ ko ŋàññi bu baax a baax ndax jàpp nañ ni nekk luy wax mal euh, lu lu mel ni personnalité politique bu mel ni Moustapha Niass lan ngay wax ci loolu. non man li mooy li ma wax rek président Moustapha Niass c'est vrai ñu wala war mal la du point de vue du point de vue vécu du point de vue. li mu li mu def Sénégal mais je crois loolu euh, benn moment pour man euh, mënoon na benn taxawee euh, njaaxanaay surtout que surtout surtout que nga nekk président assemblée nationale xam nga assemblée nationale c'est vrai président assemblée nationale bokkul ak président groupe parlementaire donc président assemblée nationale mën nga am taxawaay boo xam ne kat yow kenn du la ŋàññ te malheureusement malheureusement surtout les premières années de de sa, de sa présidence euh, dafa far ba mu ëpp président maanaam am benn combat politique bu ñu gis sax muy mënee ci biir assemblée nationale. Mm-hmm. Euh, ci ay waxam si ay jëfam loolu loolu je crois que loolu boo gisee euh, peut ñu koy ŋaññ ñàkk respect bi dem ba ba nekk ci moom vraiment looloo ko waral mais bi ñu demee ba fin bi xam nga mën nañu comprendre leen kat mais surtout nag bu Sénégalais gis nii ah mag ñi dañoo war a dem rek xale yi toog. je crois que loolu c' est une grave erreur de penser que yàgg na fi na dem non non yàgg na fi na dem ça n'a rien à parce que président euh, Moustapha Niass nu mu mën a demee Sénégal soxla na ko parce que am na situation yoo xam ne jaar na ci je crois que bu buñ ci jaaraatee dina nekk koo xam ne dinañu mën a guider dina mën a wax loo xam ne wax mais à condition que mu xam ni Sénégal rek a ko tax a jóg pas le président Macky Sall pas APR wala bokk Benno Bokk Yaakaar. d'accord et et tey bu ñu doon jugé treizième législature bi bëri na coow. <laughs> gis nañ fi nag lu ne treizième législative lañu gis ay ay ku ñu ku ñu fi jiiñ viol mu di Ousmane Sonko ku ñu fi jiiñ également mbirum euh, trafic de de de de passeport diplomatique euh, ainsi de suite tey est-ce que loolu mën nañ ko dugal ci bilan bi wala dañ naan c'est c'est quelque chose d'assez privé. ah mais non mais je veux dire c'est que moom président am am na yoo xam ni peut-être ñu ko koy jiiñ. Euh, euh, yoonam nekk xam nga koo xam ne dafa dem di trafiquer ay passeport euh, peut-être yoonam mën na si bañ a nekk peut-être que bu vigilance amoon it au niveau de l'Assemblée nationale mën nañu teel a gis quand même les gens qui demande de visas des passeports diplomatiques pour takk jabar bu bu ñu amoon vigilance bi ci war peut-être que mën nañu teel a détecter loolu sans que police dem ba jàpp ko donc ñu moytu ko loolu mënoon na nekk beneen mbir mi nga xam ne aussi peut-être yoonam mi ngi ci mooy que nii xam nga assemblée nationale regarde un exemple parce que assemblée dañ ko war a warmal dañ ko war a respecté fii nga xam ni fa lay jeexale ñu mel ni ay député euh, maam Diarra Fam maa ngi dégg léegi ni sax day day porter plainte ay député nga Déthié Fall ay député génn di manifester euh, nekkul flagrant délit nekkul dara nga téye leen jàpp leen man je crois que bu ñu war warmaloon président wu assemblée nationale loolu mën na ñàkk pour man war na mën a ñàkk parce que mënoo jël ay député yi nga xam ni parce que moom képp kuy déposé ci table présidence assemblée nationale la moom mooy saytu mooy xool en tout cas même bu fekkee du jël décision li ko maître El Hadj Diouf di wax ni nekkuloo suñu président dañu lay fay teg rek nga jiite dëgg la dëgg la euh, jiituwu leen donc c'est un député parmi les autres perchoir bi ñu teg ko fa pour mu jiite mais je crois que pour man bu ñu ko warmaloon ah euh, le président Macky Sall warmal ko mm. am na noo xam ne kat le ministre de l'intérieur warul mën jël ay députés yuy marche des députés un maire Ahmed ay ah ay députés yi manifester mais nga jël leen jàpp leen ba pare dem leen juger leen bàyyi leen ñu dem man je crois que ça c'est un fait extrêmement grave autant yi nga wax nii ci trafic yi amoon assemblée ak coow li nga xam ni les véritables débats dégluñu ko assemblée mais vraiment ay waxtaan yu wax yoo xam ni ay saagante yi xeexante yi. Mm. loolu la ñu gën a jàpp ci législature bi. moo tax je crois que bu fekkee moom am na responsabilité si yenn yi amu ci. mais et pourtant douzième bi dañu ni woon benn législature ah, c'est-à-dire nit ñi ŋàññoon nañ ko ŋàññi boo xamante ni dañ ne. Eh. treizième bi xëy na bu ah. ñëwee dina tane mais est-ce qu'il benn différence ci ci kii lu lu mu ko lu mu ko tane. non non non c'est encore pire peut-être que ña fa nekk euh, mënoon nañu yëkkati débat bi à un certain niveau mais je crois que euh, situation politique gu dëkk aussi dina déteindre si euh, assemblée. xam nga assemblée dañ dañuy wax ni pencum ndamu ndaw réew la mais pencum représentant parti politique la lu xeex bi gën a tar si mbedd mi rek ah foofu rek la am d'ailleurs assemblée foofu rek la ñu am euh, je me rappelle loolu je crois que Abdoulaye Wade moo ko doon wax doon wax ni assemblée ku am looy wax looy kaas assemblée ngi fii donc foofu rek je crois que le parti yi am parti politique yi dans leur ensemble pour di man a wax ah, euh, di jàmbarloo di truc loolu donc moo tax il faut que xeexu politique bi ni mu tare Sénégal mu détendre ci assemblée nationale na muy doxee au lieu vraiment par exemple parce que gisuloo benn yoon à part le dialogue bi ñu def parti politique yi wala bokk des acteurs en tout cas politique toog di waxtaan ci réew mi nan nan lay demee réew mi nu muy demee malheureusement Sénégal la rupture du dialogue dafa dem ba génn assemblée ba nga xam ne assemblée c'est des groupes qui se regardent en de faïence ñoo xam ne ñoom xeexante rek seen biir la ñu gën a jiital par parloo bi vraiment nekk ki ku dem assemblée yow pour yow surtout boo nekkee si président Macky Sall da ko war a wan ni maa ngi lay jàppale ba jaax mais justement loolu est-ce que mën nañ koo mën nañ koo euh, dissocier le fait que euh, député bi moom ñu si bëri dañ naan man député Macky Sall laa lu mu lu mu wax laay voté <laughs> et de l'autre côté koo xamante ne danaan député peuple bi la fi war a nekkal te dañ naan peuple bi moo fi moo fal président donc euh, lu président wax ñoom war nañ ko mën voter en tant que député bu féetee ci pouvoir bi euh, manul ñàkk nag que sa partie moo la fal si coalition lañ la fale donc boo demee si programme lañ la fale c'est que tamit assemblée loolu ñëpp xam nañu ko day dooleel politique gu euh, président de la république mm. ah loolu vraiment il faut que ñu d'accord ci looloo xew fépp donc bu ñu demee politique nga xam ni président Macky Sall def na ko indil leen ko par des projet de loi nga xam ni ñu défendre ko parce que xam nañu ni fii la war a dem fee la war a dem opposition bi àndul ak ni nga xam ni noonu la président Macky Sall di doxalee donc ñu jàmbaarloo loolu am na mais dafa toll foo xam ni dafa jéggi dayoo non nekkuloo député président Macky Sall loolu moom wax ko moom <laughs> loolu loolu bêtise la sax on peut le dire parce que nekkuloo député président Macky yow député du peuple la noonu lañ la tuddee si alalu askan bi lañ lay fayee président Macky Sall fayu la donc dès lors que yow fal nañ la ba nga toog am na taxawaay boo xam ni war nga ko taxawee bu bokkul ak taxawaayu parti politique. Mm. am nga yeneen occasion pour défendre sa parti politique. te défendre l'image du président maanaam la politique du président Macky Sall bokkul ak défendre l'APR parce que président Macky Sall Sénégal yëpp la waxal daan ne kat fii la bëgg a defal réew mi lii politique am opposition bi ngàññ ko ne d'accord ci donc je crois que. mais tey nan la ñu mën a euh, ràññee bëgg-bëgg volonté président ak volonté peuple bi. Euh, ni ñu ko mën a ràññ non xam nga xam nga il faut. supposons bu vote jotoon wala mu am benn euh, proposition wala projet de loi. fan noonu ci assemblée. assemblée waaw non c'est que soyons d'accord ci benn affaire xam nga le président dañ ko fal ba pare ci programme. pour être précis en 2019 dafa joxe programme mhm. dem campagne électorale daan ne lii laa bëgg a def Sénégal politique Sénégal yi fal ko au premier tour Assemblée nationale ñëw ñu dem élection en 2017 ñu fal la majorité des députés ñu nekk Benno Bokk Yaakaar donc dès lors que ñoom ñu représenter des représentants du peuple mais ils sont là quand même pas pour défendre que la politique du président Macky Sall mais l'intérêt du pays maanaam loolu c'est am dafa am solo. Mhm. mais mën nañu leen a ŋaññi ne leen politique président Macky Sall ba nga xam ni moom lañ ko fale parce que sénégalais yi ñi ko ñi ko fal y a pas que les les gens de l'APR majorité sénégalais yi fal ko donc ñi ngi défendre politique boobu waaye li ñuy seetlu mooy day génn day génn cadre boobu. parce que quand même gis nañu ni lépp loo xam ni xew na fa même dem na ba nga xamee ni sax un responsable de l'opposition buy wax sax dangay ngay dégg yuuxu yi. ñu la permettre nga wax. te pourtant man je trouve que c' est pas c' est pas grave que nga nekk député majorité benn nitu opposition wax la mu wax nekk ci lu jëm wala mu nekk benn proposition loi boo xam ni un député de l' opposition moo ko proposé pour l' intérêt du pays nga xam ne lii yenn na maanaam ngeen ngeen appuyer ko. mais malheureusement mënul nekk am na fi benn histoire bu fi amoon yàggul dara euh, bi nga xamee ni euh, maanaam le groupe parlementaire la majorité. dem nañu ba ba def euh, mu am benn projet loi bu ñëw projet de loi bi mu am amendement yoo xam ni waa opposition ko def mais fexe nañu ñoom parce que xam nañ ni loolu mooy yoonu carte gi foofu lay mujjee. Mhm. d'accord mais fexe nañu ñoom ba récupérer amendement boobu def ko au non amendement majorité je crois que Abdou Mbow xawma kan en tout cas du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko amandé juste rek pour que loolu ñoom opposition bi ku àndul ak ñoom bañ koo def. maanaam par parlo bi clivage bi. Mm. dafa dem assemblée à un niveau boo xam ni ñi ngi am yaakaar peut-être ak euh, biir di ñëw. mais aw ma ci yaakaar trop daal aw ma législature bu passé ñu ne ñi ngi am yaakaar ci biir ñëw parce que quatorzième bi déjà dafa am euh, euh, man je pense que ñi ngi wax waxu cohabitation mais est-ce que cohabitation dina tax bu amee Euh, surtout ak euh, ni ni opposition bi coalisé woo nga xamante ni am na inter alliance euh, wàllu yeewi ñu ñu nar a gis également peut-être ñeneen ñi nga xamante ni dañu nar a dugg assemblée mu di peut-être aar Sénégal ak yeneen coalition yi impair tout est-ce que tey cohabitation bu amoon réew mi dina dox. ah mais mënul ñàkk dox. ci surtout bu nekkee dugal nañ fa benn loi boo xam ni peut-être ñi koy oh, voté. waaw waaw waaw mais mais majorité booy voté xam nga foofu sax. mën nañoo gis ni dans ce cas là xoolal France la nga xam ne moom a fa am fi mu nekk nii. Mm-hmm. nga xam ni euh, majorité bi amu ko assemblée il faut que ñu am ay mig mag yoo xam ni dans d' autres pays sax day am ah. da nga koy gis euh, Angleterre da nga koy gis Israël am na jàllu ngi nga xam ni nga gis euh, souvent premier ministre bi déjà issu si benn coalition ah de députés pour être majoritaire au Sénégal bu ñu fa yeggoon it demee si au Sénégal on a un régime Euh, benn régime amuñu régime parlementaire on a un régime présidentiel boo xam ni dañuy wax ni benn présidentialisme à outrance ba nga xam ni le président Macky Sall am na doole boo xam ni pour que euh, assemblée nationale bi daal di dawal ah sans l'aval du président Macky Sall day doy wax le président de la République. Mm. je veux dire. waaw c'est un problème foofu la nit ñi di gisee blocage te blocage mooy la primauté revient. au président même si am na benn équilibre bu ñu gisoon xaw ma nu ñu ci mujjee nga xam ne kat le président mënatul a tas assemblée mais assemblée également mënatul a voter peut-être motion de censure pour gouvernement bu mën a ñëw. Mm. donc am na benn équilibre de force boo xam ne indi nañ ko mais Sénégal lu ci mën a am on a un régime présidentiel tellement fort ba nga xam ne kii n'empêcherait pas peut-être ni ma comprendre texte bi ak blocage bu mën a am au président de continuer sa mais ban ban reconfiguration la ñu mën a assister <laughs> bés bu cohabitation amoon ban reconfiguration par rapport à l'opposition et le pouvoir ak surtout par rapport au landerneau politique ak euh, euh, tey politique euh, climat politique bi mu nekk également image bi nga xamante ni moo nar a am Sénégal du temps sur le plan de c'est-à-dire du côté de, du pouvoir que, que de l'opposition mais en tout cas parce que premier ministre bi mën na nekk non majorité bi mooy proposer premier ministre loolu moom fu ñu xam loolu maanaam bu fekkoon euh, euh, yeewi askan wi ak wàllu ak peut-être d'autres forces yoo xam ni jàppale nañ leen même bu ñu amul majorité yeneen force de l'opposition wala euh, des trucs indépendant jàppale leen ba nga xam ne dañuy dañuy ñëw mais dans ce bu ñu gañee potentiel il propose ñoom ñoo war a proposer un premier ministre et le président Macky Sall là dans ce cas là peut mën na leen si fekk si mm. xam nga boo xoolee Sénégal amoon na benn benn cohabitation <coughs> cohabitation bi en euh, 2000 2001 mais personne n'en a parlé parce que l'option du parti socialiste moo nekkoon ñoom ñu accompagner <coughs> président Abdoulaye Wade pour mu gérer mais diggante boobu avant ñuy dem élection législative entre 2000 ak 2001 nga xam ne la ñu def élection législative 2001 mais boobu. parti socialiste ñoo ëppoon député mais pourtant ñoom ils n'ont bloqué aucune initiative de la majorité en tout cas euh, euh, présidentielle ñoom dañoo déggoo daal ne ah président Abdoulaye Wade dañ koy accompagner du ñun ñoo koy bloqué te pourtant manoon nañu bloqué toutes les initiatives du président euh, Abdoulaye Wade mais defuñu ko dañ ko accompagner ba élection législative ñëw président Abdoulaye Wade amaat majorité am majorité assemblée nationale mm-hmm. loolu option la maanaam ñu ne déggoo mën na am pour ñu jàll parce que quand ça s'est posé en France je crois que au moins ñaari yoon mais le président dafa accepter gaa yi dawal même si quelque part euh, dañ doon wax ni dañoo wax ni François Mitterrand ak Chirac Mitterrand daf ko piégé parce que bi mu ko joxee assemblée euh, bi mu ko joxee assemblée mu nekk premier ministre après gis nga bi ñu demee élection présidentielle Mitterrand dafa ñëwaat ak doole parce que wane na ko peut-être la nga xam ne yore na ko pièce gouvernement gis nga ñi ngi nii di dawal mais ils sont pas capables fa ñu leen doon xaare ñoom ñu def ko je sais pas Sénégal parce que masuñu dund loolu parce que benn moment bi nga xam ne nit ñi dañuy ragal cohabitation am c'était après les indépendances entre Mamadou Dia ak Senghor mais boobu ba léegi bokkul parce que boobu euh, maanaam le président du conseil du Dia moo ëppoon doole sax Senghor gars yi dem nañu ba nga xam ni jalousie président Senghor moo tax xeex bi tar parce que Mamadou Dia moo doon représenté Sénégal un peu partout ah di dem donc le président Senghor finalement bi ñu tasee loolu bi xëccoo amee xëccoo amee ñu ne kat lii kat cohabitation bi baaxul pour le Sénégal président Senghor profite aussi daal def un régime présidentiel fort ba nga xam ne après euh, indi genre siko si Sénégal ñu ne waaw premier ministre beeg président bi dañoo xuloo parce que c'était vraiment benn euh, dualité bu amoon entre ñoom ñaar ci kaw. d'accord mais nañ Sénégal yi xam ni moment boobu ak ni loi yi constitution bindoo léegi bokkul. mais lu mën a am la cohabitation. mais bien sûr que man man la <laughs> am. man na am <laughs> ñu ñëw ci li nga xam ni moom la opposition bi def mu di reporter. seen marche euh, um, mobilisation bi nga xam ne moom la ñu waroon amal le 29 bi euh, gis nañ ni nag ñëpp a ñëpp tiitoon ci risques yi ndax dañu gis euh, ay mouvement yu leen naroon fekk si lu ci mel ni mouvement Y'en a marre et tout ñu ñu ne buñ ko bu leen ko terewul sax buñ leen ko woon sax dañuy dem tey ñu dem ba si mujjantal ba laataa sax procureur di génnee li nga xam ne moo di arrêté bi ñoom génne nañ ne dañu dañu commencé lâcher prise volte fass la wala c'est c'est que ils sont euh, ils sont ils répondu à l'appel de de certaines de wow. certains régulateurs sociaux. bu ñuy waxante dëgg <clears throat> am na facteurs yu bëri yoo xam ni dañoo concordé wu pour ñu reporter manifestation bi parce que nag loolu Sénégal yëpp xam nañu ni am na ay kilifa yu bokkul benn côté ay chef d'entreprise yu gis ñoom gis nga suñu président sax El Hadj Ndiaye. gisante nag Ousmane Sonko. Mhm. te ñoom ñëpp seen i wax mooy que ni ñun kat ay sénégalais lañu comme yow. ay sénégalais lañu comme le président Macky Sall ëppale wu leen ñu ci dëkk bi donc suñuy entreprise xalaat leen ni dañoo investir beaucoup d'argent ñu ngi wax ni sax ku mel ni Babacar Ngom wax ni euh, xar yi nga xam ne ni ña je crois que loolu euh, am na beneen nouvelle forme de médiation boo xam ni euh, xam nga ñun bi ñuy wax médiation amatul Sénégal ñuy wax xalaatuñu leen woon ñooñu les chefs d'entreprise mhm, mhm. li ñu doon xalaat mooy pourquoi les marabouts ne parlent pas la société civile mais il faut ñu jàngat ni Sénégal il y a une nouvelle forme de médiation venant des chefs d'entreprise ah c'est un acte fort boo xam ni l'histoire retiendra cet aspect dans la vie politique du pays pour l'apaisement loolu am na solo mm-hmm. mais facteurs yi concourir bëri na dans un premier temps euh, manifestation yi te il faut pas que ñu négliger sursis bi nga xamee ni euh, euh, justice def na ko les leaders de l'opposition il faut pas ñu négliger man li ma comprendre sursis bi mooy que ni euh, sursis ndox teg nañ leen ko seen kaw un mois ku fi génnaat bu ñu la teyee un mois ferme la. loolu je crois que man épée de Damoclès boobu laa gis. ci décision du sud euh. il faut pas ñu ne yàppalee na man je crois que c'est un signal fort bi justice bëggoon a def maintenant loolu moo tax defuñu wala déet euh, sama yoon nekku ci yàgguma foofu parce que xawma tax mais loolu le contexte laay wax contexte loolu mi ngi ci. sursis bi mi ngi ci beneen contexte mooy manifestation yi passé nombre de morts yi bëri na il y en a eu trois tout dernièrement te en 2021 amoon na 14 17 morts xam nga keroog ñu ngi koy wax fii mm-hmm. Sénégal mais 17 morts dafa bëri te loolu quoi qu'il en soit ñu ngi rejeté wu les responsabilités mais ñi nga xam ne woote nañu marche mën nañu euh, fer fii de ça te ba tey gisuñu gisuñu ci benn évolution par rapport à bon euh, mën nañu wax ni évolution amul de attention parce que au moins Sénégal jàpp nañ ni on a une opposition forte loolu c'est pas quelque chose qu'on qu'on qu'on doit négliger yaa ngi rappelé aux premières années du président Macky Sall mais écoute foofu président Macky Sall mi ngi doon doxal di tëj ku ko neex di def lu ko neex mais finalement doonoon mujje fenn le rapport de force était là très déséquilibré mais fii nag rapport de force déséquilibré amu fi on a une opposition vraiment qui s'oppose de manière virulente certes mais qui s'oppose du bàyyi ñu koy euh, voilà quoi ñu koy def loolu c'est un mais je veux dire nombre de morts yi nu mu mën a demee rek euh, euh, conscience la si tous les acteurs politiques yi nga xam ne ñoo daje muy président Macky Sall bi nga xam ni moo def face ñële mais surtout quand même opposition bi nga xam ni moo woote marche parce que bu wootewuloon bu wootewuloon marche peut-être nombre de décès parce que ñu jóg di manifester appelu opposition moo leen tax a jóg loolu c'est un fait boo xam ni mën na doucher un peu euh, tension bi en tout cas la volonté de l'opposition dem ils ont également euh, évoqué contexte euh, économique bi euh, tabaski bi di ñëw euh, ñi nga xam ni ñi ngi jaay et tout ça loolu motif la bu valable mais bien sûr moom moo tax ma ne la la médiation bu bees bi ñu am mhm. c'est des acteurs de l'entreprise